kaay bi jox kàddu gi docteur Saare ne moom daa mel ni ñetti weer la ñàkk ginnaaw ndogal gi njiituroo Macky Sall jël ndaxte jàpp na ne mbiri pertement gu yaatu la ko jural madame Fall ne état bu Sénégal bi kuy xaar di nga xaar di maanaam ci kaw gàttal kenn mënta compter ci moom docteur Tall ni ci musiba dëgg nag la jëm lii raam ci ñag bi la jëm te su fa amee kër dafa gaaw a jóg docteur Tall yamu ca ndaxte nee na nag loraange gi xaar askan wi foo ko natt weesu na bi daa sàkki ndax ne jël na ko témoin yéeglekaay bi ne njiitu réew kon ngànnaay ci boppam la wéer ndax xeex bu nu sumoon sunu diggante covid 19 lépp la teg ci suuf Sud Quotidien nguur gi kay daa bàyyee teg ci suuf ger wu nu sumoon sunu diggante covid 19 yéeglekaay bi ne mesures yi nga xam ne njiitu réew jël na ko yees bu dee moom Macky ay farandoom kon dañ ci ànd ba jeex tàkk opposition bu Sénégal gàcce lañ ci àndal ndax te ne musiba moo nu yot ginnaaw ndogalu dogalub njiitu réew Macky Sall te luy jiy njaag loi d'habilitation bi ñu ko woteel moom mooy njaag yëglekaay bi ne ñi gën a loru ci mbir yi mooy ñuy yëngu ci wàllu tourisme ci Sénégal ndaxte nee nanu loraange yi mu jëral King Fahd foo ko natt weesu na ko luwaaskat itam nekk ci njàkkaare ndax la bañ mooy weer wu dee duñu am lu ñu fayee ñu génne leen ci biti borom boîte de nuit itam kenn ñoom ndaxte nee nañu ñoo gën a loru ci ndogal yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko ba tax ñu ne di ci réew mi laas ne fajkat yi seen mbir seddul ndax juróom benn sage-femme ak benn brancardier ñoo corona ca l'hôpital Mame Dabakh bu Tivaouane loolee tax Vox Populi ne service pédiatrie bi ak maternité bi lépp la ñu tëj libération ne woppi covid 19 di mbaas mi ci réew mi ba tey ma ngay lawali banqaasam ci Sénégal ndaxte téeméer ak fukk ak ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ca Thiès benn dëkk ñaari kaar yëglekaay bi nenu juróom benn fukki nit ak juróom ñoo fa fan fukki nekk ca Diourbel sursaane mbiri kay catastrophe la catastrophe gu rëy ndax bi lépp na mu ngi bàyyi ko ci waa ji nga xam ne juróom fukki at ak juróom-ñeenti la am ba noppi am hypertension moom rek jot na wàllu juróom benn nit ci wopp yi te mbir yi mën na gën a doy waar gën a diis fii ak fukki fan yeneen ñeenti nit ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi fanweer nekk ci sowtaas la turbune ne waaw bu dee rek mbas mi ci réew mi dafa lompañal koom-koom ci réew mi lan moo tax njiitu réew Macky Sall du wàññi gouvernement bi ba noppi boole yenn ci ministère nga xam ne jël ndaxte nee nañu dañ yokkalaat yeneen ñaari weer yoo xam ne duñu liggéey te nag loolee def nañ ko ba noppi ci durub ñetti weer yéeglekaay bi nañu téeméer ak juróom-ñeent fukk ñaari nit lañu te ñoom ñëpp nee nañu bii du ci ànd tey niki ëllëg Diouf Sarr ak Moustapha Cissé Lo ana kan la ñu ànd Walf nañu en daal seen diggante seddul te nag boo mayul li am seen diggante mooy raw guerre te saa jolle ne deret gu bëri dana fa tuuru direct news ne tabaski bi ñeexteelu weeru sulet gii lañ ko jàpp waaye am xar nag moo tere nelaw borom kër yi yéeglekaay bi ne ndax borom kër yi danañu gis gennu xar ci bile tabaski ñu bàkku jëm ci làmb jeeg sunu làmb yéeglekaay bi nenu combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux revanche du siècle taxaw na ca Gaston Mbengue donkin moo fa jaar sunu làmb ne staffu Balla Gaye 2 dëggal nañu ko taxawaay Boy Niang 2 mi nga xam ne juróom fukki laas ne musiba dëgg moom ci technopole ci ndakaaru ndax benn waay boo xam ne anut ak xelam lanu fekk mu faatu ba néew bi tàmbalee yàqu mais dangay seet loolu